Eh, pour en revenir euh, à, au débat politique mm-hmm. gaa yaa ngi ne yéen am ngeen seen candidat mm-hmm. euh, mais dafa am benn débat bu ma nekk di dégg on a dit que c'est Bassirou Diomaye Faye le candidat mm-hmm. de de de Pastef dafa am benn débat bu ma nekk di dégg euh, dans certains milieux de l'ex-parti Pastef ñu naan c'est pas un choix de Ousmane Sonko ñu naan ay ay ay cadre ñoo ñoo ñoom ñoom ñoo retiré wu Euh, def def choix bi c'est Ousmane Sonko le candidat ku parrainé Bassirou ñenn ñi naan pare dañu parrainé Bassirou c'est ne Ousmane Sonko ñenn ñaan ku parrainé Bassirou Diomaye tu as trahi usman Sonko yow mi nekk dans le cabinet de Ousmane Sonko euh, ban version la ñuy retenir. la seule bonne et unique version qu'il faut retenir c'est que Ousmane Sonko reste maître à bord et continue à gérer sa stratégie. lu fi xew suba ba jant so il est au courant et c'est qui oriente tous les actes moo ko dicté voilà tous les actes donc nit ñi nañu ànd ak dal Ousmane Sonko comme je l'ai dit et redit c'est un homme que je connais très bien c'est un responsable il connaît sa responsabilité te nekkul na koo xam ne day bàyyi du n'importe quoi di di xew dans son entourage il n'est pas de ce genre là et c'est pour ça que d'ailleurs je suis très à l'aise dans PASTEF parce que xam naa ne il y a il y une organisation il y a des règles et leader dafa assumer li mu doon malgré nag péripéties yi muy dund yëpp donc nit ñi ñu focus encore en et en tout cas moi c'est pas ça que je man li ma retenir mooy ba ñu lancé parrainage au fiche 111 de notre frère Bassirou Diomaye Faye pour l'animation des parenage ba léegi on est en train d'avoir des résultats extraordinaires yaakaar naa ne sénégalais jàpp nañ ne parrainage mu ngi door a commencé te loolu gàcce ngalaama tous les sénégalais qui croient en ce projet de souveraineté may beral loxo waa Bawol ma ma juddoo ma ma jógee mm. daanaka j'ai fait de la politique pure et dure mm.